am gan yu jógee ba bitim réew ñëwoon fii si Gambia nara ñibbi so you gonna go. yeah you gotcha. so. Yeah. It's sad. So what's your name? Louisa. Louisa from yeah. Brazil. Brazil. Is this the first time in Gambia? Yeah, my first time in Gambia. And how is Gambia like? It was amazing. We passed through a lot of villages. We, we see miracles and wonders and we, saw, we talk, talk about Jesus in each place. And we saw how much Gambia is ready for him and to see who Jesus is and to know him. That's beautiful. So can you speak any local language in Gambia? Um, uh, Haujam. Majam. Hule. Yeah. Oh, you're Sarahule. Oh, that's nice. nice. What's your name? My name is Duda. And you are short like me? Yes, I am. <laughs> nice to meet you. My pleasure. <laughs> Yeah same height? Yes. <laughs> so is this your first time in Gambia? First time in Gambia. From which country? Brazil. Brazil. Yes. And how do you see Gambia? Amazing, amazing, nice people, good food. I love Gambia. You love Gambia? Yes. Speak one local language, let me hear. Same thing, Majam. No, no, she already said that. Ah. So you have to give me another one. I don't know. <laughs> Abaraka. Abaraka. You get it right. How are you? Fine, how are you? And your name? My name's Kelsey. Kelsey, from which country? I'm from America. America? Yes, ma'am. Is this your first time in Gambia? It's my first time, but hopefully not my last. And who motivates you to come to Gambia? That's such a good question. Jesus. I'm a follower of Jesus, a believer of Jesus and the gospel, and he asked us to come here and, and get to know the Gambian people and serve them. And you pray for my TV, Gambian Talents TV. Yes, we'd love to pray for you guys and bless your all the work that you're doing for the Gambia. Amen. Yeah, amen. Any any wall of word or Mandinka word or any traditional uh, local language? Salam alaikum. Salam alaikum, oh, yeah! You got it right. Yeah. A good team. What's your name? Hi, my name is Duda too. You are short like me. Yeah, we are short like as, ah. as same as you. Ah, okay. But you're beautiful. Thank you so much. I love your smile. Thank you. And from which country? I'm from Brazil too. Brazil. Yeah. So is this your first time in Gambia? It's my first time. What motivated you to be The here? same as my friend. We are here to talk about Jesus and Jesus called her to come, called us to be here and to talk about him. And have you visited different different churches here in Gambia? Yeah, we visit in Soma, Sabi, Kiritri, Birkama, uh, Soma. I said Soma. Yeah, a lot of them. Meme. Meme. Meme is my favorite. Fatoto. Meme is my favorite. Why Meme? Because they are so friendly. And also our contacts, is amazing. So He's from there. He's from there. Yeah. So he's a village boy. Yeah, he's a village boy. Ah. He is. he <laughs> ah, is. I'm proud of you <laughs> guys. Thank you. And your name? I'm Noah. Noah. From which country? America. America. Yes. Is this your first time in Gambia? Yes. And do you love Gambia? so much, Gambia is my favorite. Do you I, want to come back? Yes, I'm so, so sad I'm having to leave. I was looking out the window as we were driving and I was just waving at all the people and I was like, I can't believe I have to leave this place. It's so beautiful. I hope Jesus sends me back. And how long, uh, how many days have you been here? Uh, two and a half months. Months? Yes. You spent months in Gambia? Yes, it's been... Dangai, ah, Yeah, huh? 100%. Do it again, let me see. No, no, no. <laughs> so, tell me, um, any local language? Um, all I know is salam alaikum and abaraka, sorry. <laughs> thank you. Yes, thank you so much. Jetty Jeff, Nawari, Baran, I don't know that. Baramak, Nangadef, Nangadef, Jamarek. I'm proud of your team, okay? Thank you. I'm thank you. I will come to America and Brazil. Thank you. Hawaii. You need to go to Hawaii. No, I've been to Hawaii, so I don't want to. Go to Rio de Janeiro then. Oh, Janeiro. Rio de Janeiro or oh, Belo Horizonte, you go there. All right, what's your name? Uh, Uh, my name is Paul Mendy. Paul Mendy. Yes. So Paul, you are in gars yi Gambia. Wow, man my in gars yi Gambia Be more than first time waaye The day I'm teams yu bring. I'm not xam ne dañ Gambia fii fii nii. Mm, waaw dañ dee def different stuffs comme ñoom ah, uh, some of the thing they is to tell people about God and uh, especially ñu wax leen yooni yàlla daal team school si si clinique you know di offer service different service yi nga xamante ki ni you know uh, dañ ko soxla si Gambie bi daal because man tam loolu noonu laa ko gisee like ma part of contribution to the to country yow li nga def si wàllum diine am na solo bu baax a baax I hope suñ um, um, naka la nguur bi ñu ngi laa gis ñu xool looy def mbaa nguur bi gis nañ li ngay def. waaw ah noonu la rek dañoo def suñ côté rek waso whosoever that is watching ak ku nga xam ne gisul sax ñun dañoo def rek pour yàlla waaye mostly um, sometimes tamit da ngaa xam ne uh, diine bi dañ lu ñu war a dimbale la most of the time dañoo wane xale yi yaruwuñ you know booy saa ngay dox si dox si tuxtaay wala di sàcca ku amut yàlla moom lu nekk rek mën na koo def ku ragalut yàlla lu nekk mën na koo def waaye moo tax dañ war a try ñu waaree yàlla nit ñi nit ki su xamee yàlla rek dafa am lu mu lay ragal. yonesaan ku ragalul yàlla du mun a ragal dara du la ragal a rey sax du ragal a sàcc alali jàmbur waaye soo gisee nit ki di moytu yàlla moo tax digganteem ak yàlla moo tax iya, moo tax iya, dafa important Ya yow lan nga mhm. yow dang dee preach oh, yow si li fi ni nga bokk naka la pastor yi ndax si lan nga bokk that is a very good question man missionary la mhm. ah, maanaam missionary I can preach in the church dama dee dem si church yi ma waare mhm. dama dee dem si dëkk yi ma waare dama dee dem si yoon yi ma waare I travel to other countries also ma dem foofu noonu dañ ma dee invite conferences ma dem si conference yi ma waare but ah, mostly man dama try pour live out my life pour young people yi ñu gis ma nu Sunday and let them see that, you know, I'm not just talking about God. I'm trying to leave out the principles of the kingdom of God. Because loolu moo gën important. It's not about being a Christian or a Muslim. Li gën important mooy yow sa diggante ak yàlla si boppam. You know, naka nga ko nekk di sàmmee, naka nga ko nekk di toppee. Ko diine mom fii la moo em. waaye luy mujjee fële mooy sa diggante ak yàlla ak ni nga doon jëflante ak nit ñi loolu moo nekk li nga xam ne dafa mujjee si kanam yàlla amul muslim amul christian amul loolu noonu fii nii because ñu nga xam ne ñooy toppa euh, Muhammad moo tax ñu ne muslim ñiy toppa Jesus moo tax ñu ne christian bo si kanam yàlla benn diine rek moo fa nekk mooy suñu diggante ak yàlla si boppam waaw loolu rek mooy mujjee so tey euh, soo doon wax euh, ndaw yi rawatina nag su ndaw yi nga xam ne ñu ngi war a dugg si diine te xamuñ seen diine loolu naa wax Wow, mostly man suma may wax rek suma dole dafa si christian uh, religion bi. Wow, do wax ne yow yaa ngi wala yaa ngi yaa nekk christian ba pare yow sa life mënuñ ko identify with a normal person ki nga xamante ke ni gëmut wala um, nekkul di topa yala sa life dafa wara am difference So waxee ne yaa ngi yala yàlla nit yi dañ war sa dunda ñu gis ne dunda principles yu nga xamante ke ni ñoom a ah kii tamit dega dégg mom tam hamna yala. yon sa so ndaw yi most especially dañoo wax ne dama explore we outside xam nga xam nga afternoon. Yes, we can enjoy ourselves, we can be outside because we are young, but even in that youthful age, we still have to remember God. Because while you are young, time bo nga wara topa yalla. dama day wax nit ñi ne yala yalla bu nga nekkee ndaw nga gaadu yalla ci sa biir xol ndaxte soo demee ba nekk mag yalla dina la gaadu dafa am place yu nga danga faa bugg so nekk soo mag sa diggante ak yalla bi nga sàmmoon taay mo nekkee ndaw rek mo la fa yon saan dunda yàlla dunda bu nga xamante dafa toppa yàlla ndaw dunda amul so loolu la man maa ngi ñaan uh, youth si ñoom tam ñu delloo sen xol yàlla in as much as we are striving to look for money and all of that stuff let us seek for God because our relationship with God is what lasts money is for this world but our relationship with God is eternal so people have to invest in their relationship with God. loolu am solo ma gis ngeen ànd ak ay tubaab ah, ñi si yoon bi yëpp ñu ngi wéef ñu nit ñu gis leen. you know naka la gars yi dundee life yi Gambia bi moo especially ak fan ak fan ak fan nga leen yóbbu. waaw apart from the religious ah, aspect of it dañ am opportunity pour dem si school si meet xale yu ndaw yi am a very good contact with the children demoon nañ sa si um, um, hospitals bi ñu dem foofu ñu gis xale yu ndaw yi nga xam ne de that was their first day in the world ñu gis xale yu ndaw yi because xam nga suñ condition yi um, hospital si fii dafa ute condition si fële so sometimes when they do place bu nga it's a shock for them but also it's a lesson for them You have ne life is not just on that comfort side of the world but there is another uh, um, side of it so jàng nañ lu bëri la Mémé in the North Bank yobuna naa leen Jara Soma because maa ngi tabax project foofu noonu Jara Soma bi nga xam dafa benefit youth si yóbbu naa leen fa ñoom seen boppa dañ doon tabax de ñu ngi doon di gas sokawee yeeg yooyu noonu gaa ñu ko doon def yeah even though they are young people coming from America they were doing that so the same labuga bëgg a encourage nit rek um, suñ dëkk bi dafa bless suñ dëkk bi dëkk bu baax la dëkk bu rafet la ñu bëri bëgg nañ fe ñëw so ñun tamit nañ try ñu investi suñ dëkk bi buñ bu yut ci daw buñ daay Gambia Gambia is not a dead zone Gambia is not a um, is not hell for the youths nañ nañ gis suñ dëkk bi ne there is a uh, potential in our country and we can enhance the riches from our country ñu enjoy suñ dëkk bi bala ñu daw baay dëkk bi ñu dem di uh, di develop dëkk jambour nañ ko def fi you know soo rek dafa fekane sa liggéey bi nga def fi mo la gene nga dem ñewat all right. yow ban dëkk nga dëkk fu neni man right now maa ngi uh, pipeline. waaw ba si Gambia ban saa te ngi joge Meme jokadu waaw jokadu nag soko ko xamul so jógee bara between bara ak uh, Meme. da nga de jika ega egg ya force village uh, former vice president bi Aïssatou ndjay sedi like 32 kilometers away from bara then nga toon sa sa sa right nga dem Meme Meme is a very beautiful place dafa am river dafa am lépp foofu noonu naa ne suma gaay a ngi yaakamti <laughs> waaye you know it's a very beautiful. adelu ndax da ngaa. no no dama adelu dama adelu you know and maybe in the next week man si laay tukki yeah. yo fan ngay nek ba man ma ngay dem Jamaica right now yeah I'm going to Jamaica. Jamaica wéyal ñu Fatou Diouf. tolibila ala aje chaleka wina mahamila gunima alibatela na Jamaica ilo ya wewe ni Jamaica kama Jamaica Love Jesus and follow him every day. ah man mënu ma raaf suma waa ji. <laughs> demal demal demal demal. <laughs>